Adama Mbengue maa ngi lay nuyu. ñoo lay fay soxna si baax. alors ngay njiitu ONG action pour les droits humains et l'amitié di ADHA ñu gis ne ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères jot na nag euh, annoncé ne état wu Sénégal euh, tàmbali na rapatrier ci ay ressortissants wu Liban mu mel ni ginnaaw seen sorti bi euh, tey jii nan ngeen jàngate nouvelle bi. d' abord da ñuy euh, permettre ñu remercier la presse parce que ñoom joué nañ si rôle bu am solo rôle boobu noonu moom mooy lan moom mooy euh, d' abord communiqué yi nga xamante ne moom lañ def voilà ñu koy def ndax dañoo gisoon ni am na ay sénégalais yu nga xamante ni ñoo nekkoon Liban ñu génn def benn alerte alerte parce que euh, ñoom ils s'attendaient à ce que lii nii di Israël sànni ay bomb foofu ñu nekk fu ñu nekk na moom mooy sud du Liban maanaam sud Liban bi nag moom moo jege frontière ak bu euh, kii bi nga xamante moom mooy Israël maintenant boo ñu defee alert boobu ñu gis ni que les autorités kenn waxu si maintenant ñu dem ba le am kenn ku nga xamante ne muy tudd Anna Diédhiou Anna Diédhiou nekk benn ndaw bu dëkkoon euh, fenee di Oussouye dem fenee di Liban dem fa de manière régulière dem demoon daan doole hmm. yàlla fekk nag immeuble bu mu nekkoon foofu ñu bombardé ko si la faatu ba mu faatuwee nag ñun si lañ génnee alerté ba ñu alerté nag gis ni ah ñoom euh, le sept lii nii di ministre porte-parole du gouvernement ñu génn boo mu génnee ne dinañ leen rapatrier dans les plus brefs délais ñu jàppoon ay date ndaxte recensé ñu nekk foofu noonu di Sénégalais dafa yomb ndaxte ñu si bëri boo ñu demee c'est de manière non seulement pour daan seen doole ñeneen ñi ay famille lañ donc boo ñu leen regroupé ne le quinze nañ ñëw ak le dix-sept ñu toog le quinze gisuñu dara si lañ waxee ne daal ñu jógee nag si lañ defee suñu conférence de presse ànd ak seeg ay yenn kuréel ànd seeg tamit kenn koo xamante ni dafa toogoon foofu dem ba euh, kenn koo xamante ni benn Sénégal turc la bu ko dagal biir ba mu ñëw fii donc si lañ defee conférence boobu après conférence boobu nag ñu gis ni que euh, l' état réagir na ñu andi leen donc bañ leen andee nag. am nañ si mbégte waaye mbégte bi nag bëriwul trop ndaxte ñi andi ñooy toll si limu cent dix sept cent dix sept boo si naree génn presque neuf cent gis nga ni euh, différence bëri na trop même bu fekkee ni cent wala deux cent jël nañu vol commercial ñu gis ni que dina ëpp lu tolloog euh, quatre cent ñu ko ëpp yoo xamante ñooy des foofu ñenn ñu nag ah nañ jéem a xool lu tax ñu des fa ak euh, lan moo tax daal ñëw ñu alors est-ce que yomboon na tey ngeen mënee euh, combat bi ndaxte euh, ñoo ngi naan 700 ñii ne 900 sénégalais yoo xam te ne ñoom ñoo bloqué wu euh, ca Liban. yombul yomb na lu ko yombal moom mooy taskati xibaar kon nuñ koy faral di waxee rek yéen buñ nekkee suñu liggéey dafay yomb yéen ay tax ndaxte yéen ay tax mun a alerter. l'opinion publique nationale et internationale bu ñu leen alerté nag loolu mooy def pression pour ces gouvernants là pour ñoom ñu mën a réagir lu nga xamante nag ñu ngi koy ñaawlu chaque fois moom mooy nguur yi dañuy du ñu réactif trop dañuy toog rek ne taxawut préparé du ñu wax dara maintenant nag euh, il faut mu am benn pression te pression boobu noonu na jaay bi ñoo ko mën a exercer ñun bu ñu defee suñu rôle ba pare nag de veille et d'alerte yéen a koy ta euh, tasaare boo leen ko tasaaree noonu dañ siy kontaan daf ñuy fàttali rek en 2012 boobu mu amee woon ay sénégalais yi nga xamante ñooy bloqué woon fii ne Euh, amoon a benn ping pong boo xamante ni bu nekkoon fii nii ministre des affaires étrangères moom moo ko doon def bu teyee mu ne li a andi leen dans mois dans dans deux jours dans dans deux semaines ñu toog toog toog ba ay pratiquement ay weer yu bëri yoo xamante ni daal si la ñuy door a ñibbisi hmm. donc euh, rôle boobu noonu yéen boo leen pu joué rek mën a liggéey bu nekkee nag amul nag trop liggéey bi dafay difficile waaye lan lañu ñu war a def ngir mën leen jàppale nag psychologiquement fexe ba gunge leen euh, ci jafe-jafe yi ñu jànkonteel. bëri na comme ni nga ko waxee psychologiquement moom il faut mu am benn ay ay ay euh, ndaw yoo xamante ne wala ay ñu daal euh, seen seen li ñu jàng si wàllu psychologie maanaam ay psychiatre yu nga il faut savoir ñaari chose mooy benn bi. mooy ñu nga xamante ni mooy cent dix sept yi ñuy ñeneen ñi nag moom mooy euh, ñu nga xam ne jël vol commercial donc ñaan ñooy nag bu ñu leen boole ñooy ñëpp la ñu war a ñëw assister psychologiquement sans compter ñu nga xamante ñoom fa des war a ñëw maintenant bu ñu leen assister psychologiquement te il faut ñu assister leen sur le plan sanitaire xool seen wér yaram je pense que suñu conférence bi rek ku fa nekkoon journaliste ñu ko ñun couvrir ñooy doon gis mu doon sëkkate te moom si boppam wax na ni balaa boobu mu doon sëkkat dret ndaxte euh, boo toogee fenn fam dañ ko bombardé sorewul ak yow fu nga nekkoon naturellement gaz yu ngay yu ngay ñëw nooyeeg yooyu noonu am na benn effet bu mu def si sa yaram waaw ñooy bu nekkee nag kenn assisté wul leen loolu dafay grave donc bu ñu paree nag ñaari phase yooyu noonu ñu war leen assister sur leen si seen réintégration socio-économique euh, euh, réintégration boobu noonu nag am nañ ko ay direction ay DER ak yeneen ak yu mel noonu yoo xamante nag moom moo leen war a accompagner waaye ñun nag comme lu ñu wax rek état dina taxaw dem saytu lu nga xamante ne daal mooy rôle état bi ndax mooy koy jouer pleinement ou pas est-ce que jotul tey ñu gën a assister euh, sénégalais yi nekk ci extérieur bi euh, ndax ñu mën a tamit éviter yenn situation yi. war nañ leen assister parce que dafa am lu nga xamante ne euh, wala les am nga xamante ne daal seen devoir la envers eux bu tey jii nii euh, Sénégalais bu nekk ndakaar wala bu nekk biir wala mu nekk feneen bu amee jafe-jafe suñu nguur dañoo war a ñëw taxaw temm ñëw assister leen loolu moo tax nga gis ambassadeur yeeg yooyu noonu ñu am euh, salaire seen soxna sax ñu jox leen salaire pourquoi parce que dañ leen bëgg a mettre dans d'excellentes conditions léegi nag loolu nag dafa am benn moyen tamit bu nga xamante moo ko war a accompagner moyen boobu noonu mooy ñoom ñu war leen mën d'autant plus que xaalis buy gën a dugg si dëkk bi am na lu muy représenté lu am solo ci suñu euh, koom-koomu réew donc ñooñu dañ leen war non seulement euh, assister assistance nag nekkul ni da nga war a renouveler sa carte de séjour wala da war a renouveler sa carte d'identité autant pour moi wala sa passeport nga jaar foofu noonu déedéet parce que raw na loolu donc il faut que euh, ñu xoolaat suñu diplomatie te euh, mën nañu wax lenn mooy depuis euh, quelques années dañoo gis ni que daal lii di diplomatie sénégalaise dafa gën a dellu ginnaaw loolu moo tax respect bu ñu war a respecter dëgg du ñu ko respecter je rappelle que en deux boobu amoon même problème bu nga xamante ne moom moo xew ni mooy euh, Liban ñu koy bombardé sous le président Abdoulaye Wade dafa commandité woon maanaam dafa yónni woon kii ni nga xamante ne mooy doomam seen jéejil Wade mu demoon jëli près de quatre cent Sénégalais yu fa nekkoon donc mu def réaction bu gaaw boo xamante ne daal taxoon na ba nga xamante ni euh, euh, ndaw bu fa gaañu demoom comptabiliser wuñu ko lii nii nag am na ay lenteur yu nga xamante ne moom moo tax tey jii mu dem ba nga xamante ni Anna Diédhiou nekkoon Sédhiou aussi autant pour moi ñëw décédé donc réactivité boobu noonu la ñuy plaindre depuis des années il faut ñu xool jéem a changé de paradigme ba nga xamante ne daal lii nii di diplomatie bi ñu bañ a ñëw rek pour entre quatre minutes xëy na am na ñoo ñu def seen liggéey mais ñu si bëri daal quatre minutes yooyu noonu seen climatisé rek euh, nekkul seen rôle seen rôle moom mooy dem tout Sénégalais nag ñu ñëw jege la assister la maanaam saafara sa problème. très bien en tant que euh, défenseur tey nga taxawal fii ak yëleefu doomu adama yi ana nan nga jàngati arrestation opposant bi di Bougane Gueye Dany. waaw euh, buñ siy jàngal rek euh, moom mooy benn sorte boo xamante ne mooy dañoo wax ni que si principe dafa am lu nga xamante ne daal moom mooy charte réew bu ma doon wax sànq mi bu nga xamante ne dafa am lenn lu muy disposé. muy article quatorze de la constitution bu muy wax ni que euh, sénégalais bu nekk am nga liberté maanaam bu nekk yaa ngi jouir sa droit fondamental mooy da nga am liberté bu nga xamante ne de circulation ma cette mobilité là fu la neex si biir Sénégal ak même bitim réew bu nekkee encadre nañ ko ñu ñëw permettre la pour nga circuler maintenant gis nañ ni que ah, liberté boobu noonu ba fuwee nañ ko waroon nañu bàyyi nit ki mu dem fu mu war a dem waaye foofu noonu ñaari kii rek lañ si def mooy exception maanaam bu fekkee ni eh, am na benn notification boo xamante ni eh, def nañ ko par l'autorité ba léegi ñu gis ñu notification boobu noonu wala ñu nekk si benn circonstance exceptionnelle waaye ba léegi nii circonstance exceptionnelle boobu noonu définir guñ ko maanaam comme que définir ko nag ndaw wala nit war na am droit ñëw surtout donc euh, am na yoo xamante ni dépassé woon nañ ko xeexoon nañ ko depuis des années ba daaw régime bi ñu weesu ñu doon xeex ces droits fondamentaux là donc waratuñu waat delluwaat ginnaaw pour ñu euh, di téye ndaw ak ndaw bu mu mhm. leneen loo xam te ne soxal na loolu réew mi euh, bokk na ci crue fleuve Sénégal mu mel ni dégâts yi mu ngi gën di yokk rawatina jafe-jafe ñuy jànkonteel ca Bakel. waaw euh, lu fa xew dañ koy nakarlu comme pour euh, ñëpp euh, nga xamante ne heure bii ne dañoo soxla benn élan de solidarité gis nañ ne que benn autorité religieuse wax na si sa tamit donc ñun ñëpp muy les politiques ak boor bu ñu mën nekk muy pouvoir ak opposition muy tamit di nii di les organisations de la société civile muy citoyens yëpp dañoo war a ñoom manko booloo jéem a xool daal nu solidarité par rapport à ces personnes là ñu nga xamante ne ñuy nekk si ndox yi gis nañ ni que tey ñu bëri ñooñu dem jàngi si benn droit boo xamante euh, kii nañ ko mënuñu ko matal mooy euh, l' éducation ndaw bëri mënuñu dem jàngi ndaxte seen école yi mooy si dox donc lool rek muy benn exemple bu ñu fi nekkee mën a ci dégg si ba suba. Mm-hmm. Adama Ba Adama Mbengue jërëjëf may fàttali rek ne yow yaay njiitu ONG Action pour les droits humains et l'amitié ADHA ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. di leen remercier di wax rek am na leen loo xamante ni euh, muy euh, article cinq bu cadre euh, électoral bu nga xamante ni daal moo ñu am lenn lu muy wax mooy propagande politique déguisée wala benn support boo xamante ni daf bu jaar ci média bi te gisoon nañ fi. fan yii ne rek benn manifestation bu amoon loolu général ñoo ngi xaar mu def seen rôle par rapport à cette manifestation ñun la ñuy remercier seen taxawaay jërëjëf